amoon Ama Ama léegi nee naa ko Ama mu ne ma Babacar hey Ama Baldé Ama nee na pare na Modou tam nee na pare na. Ndeysaan Bamba concentré wul ma fii Bamba ngir yàlla dama la koo ñaan Bamba neel ma fii voilà na leer Dakar ak ti la Babacar a ngi nuyoo di siyaare di ñaanal ñëpp ñuy seetaan jàmm. ak foo leen mën si àddina bi waaw il a dit eh, il est vingt heures treize. waaw léegi ku ne da ngaa bës sa cumukaayu morom il est fii ci arène nationale Malick Ngom waxoon naa ko de waxoon naa ko dem ca Zik FM waaye la ma waxoon daa ni moo am Malick ngoom mooy arbitre bés bi laa ilaha illallah Malick Ngom moo mujj arbitre Modou Lo Malick Ngom ñoom ñaar. Léopold Senghor lañ mu jabaré ñom ñaar amabal Baldé Papa Sow la mu jadan ñom ñaar Modou Lo Eumeu Sène la mu a jël couronne bi amane ko dama koy nangu yóbbu ko Pikine Modou Lo ngeen bu son at bi na pied droit pied gauche ñu ngi lewto ma ngi ni ku siifu Dakaractu Modou dem na Modou à droite Ama à gauche Ama ngi avancer bo xolal nak ci yaram Ama mo upp eh Ama sànni na droite Ama sànni na droite da bëgg a door jàpp ko de door na ko jàpp ko Modou fayu na eh laa ilaha illallah Modou gërbal na ko Modou ak Ama door mu daanu laa ilaha illallah Modou ak Ama door mu daanu mboot mboot mboot Ama Baldé Modou Lo war na ko ndomba Modou la war na ko ndomba Modou Lo war na ko ndomba mu koy door mu ngi koy door mu ngi koy door mu koy door mu ngi door <laughs> Modou Lo Modou Lo am na ko daw dugg ci géew bi am na ko daw dugg ci géew bi am na ko atta nañu combat bi atta nañu laa ilaha illallah laa ilaha illallah Bamba ah waay ay Modou Lo ay Modou Lo ay Mamadou Lo ay roi des <laughs> kii mu filmé Bamba toppal ma lii ay Mamadou Lo am na ko atte combat bi laa ilaha da koo sëkkatal xeex ak moom amati ko mbaar moo du génn tuur ko dañu atte combat bi salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari danay baree bari